rabbi isra li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina muhammadan wa sallallahu ala sayyidina muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsani ila yawmi ddin ayuha almustami'ina alkiram nuhayyikum bi tahiyatul islamiyya mubarakan ala wa hiya salaamun min indillah ilaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam
kon mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla subhanahu wa taala yàlla mi nga xam ne daal moom la sant bi yeyoo moom la sant bi ñeel borom mi nga xam ne daal moom may ki ko sant rek mucc waaye ki ko bañ a sant sànku kon ginnaaw buñ ko sante daal di julli ci suñu sangu-sang yi mooy seydina muhammadu sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mboolo mi jullit yi nga xam ne daal ñoo fi teew muy góor ak jigéen di leen nuyoo ci nuyoo lislaam di leen naan di leen dalal di leen naan ahlan wa sahlan kon fii bokk nañu fii ñoo fi bokk donc ginnaaw loolu ñii suñu naatango la ñii suñu soppe la ñii suñu daal ñoo bokk lépp ndax gis ngeen julliti ci Ziguinchor ak jullit Dakar ak julliti Saudiya ñii ñooy benn kon ñii yàgg nañu di yëngatu ci wàllu lii ku leen gisul waaye dégg nga leen te waaw dégg yàlla defe naa ñu ne ñii nuuroo ñooy naawandoor kon loolu tax na bee ñoom bu ñu jógee Dakar seen kër ñu ñëw seen kër waaw mais xaasatan maanaam particulièrement mooy ñëw ci seen naatango yi maanaam seen sopp yi son ñi nga xam ne daal ñoo bokk yëngatu kon comme ko bokk nañ yëngatu bi ñoo daal di ñu ziyaare di ñu xamal ne yëngat bu ñu bokk boobu la ñuy weyal ba léegi kon ñun tamit fii nuñ koy weyalee kon man personnel kenn du ma présenté kenn fii waaw sama yëngatu bi kenn du ko présenté donc ñoom tam noonu lañ fa nekkee ak FENACE mais nag ñoom bu ñëwee at mi ne dañuy ñëw def tournée après que Casamance yëpp dañ koy sillonné dañuy def fii Katawa dem ba dem Sédhiou ko ay Kolda yooyu Goudomp dañ yooyu yëpp dañ koy def Ziguinchor nag fu nekk dañ koy def ji ngeen ñun nuñ fi ñëwee ñeneen ñi noonu lañ demee feneen kon dañuy tasaaru daanaka du dara waaye nag lu tax lii mooy ngir yàlla subhanahu wa taala du ngir dara wudul yàlla kon ñu ne nañ leen ñu leen di nuyu di leen ziyaare di leen xamal ne seen gan yi ñu ngi nii kon ñoom daal yel lañ fi am ngeen xamee ko noonu ginnaaw loolu ñu ne ñu bëgg a bokk ak yéen bokk ak ñun waxtaan bi nga xam ne daal mooy fàttalante waaw ndax loolu yàlla saa moo ko wax nee na na ngeen fàttalante ndax loolu dafay njëriñ ak jullit kon comme que loolu la loolu tax da ñu sawar lool pour ñëw di fàttalante ak ñun ci mbirumu suñu borom bi subhanahu wa taala mais nag kii mu ngi tudd kon da ngay présenté sa bopp waaw mën nga présenté sa bopp kon maa ngi tudd Oustaz Seydou Ly voilà Oustaz Seydou Ly maa ngi nekk Dakar voilà
nekk imaamu juma nekk benn directeur école bu tudd franc franco arabe imaam Ali ibnu Abi Talib bi mu ngi tudd Siyaaka Sadio professeur la ci lycée fan la wala CEM la CEM fan Saint-Louis CEM bu nekk Saint-Louis kii mu ngi tudd Ousmane Gakou moo ngi dëkk jàmm gën am na ñeneen nag ñenn bëri nañu délégation bi ñu bëri la comme nu ko oustaz waxee lu tolloog léegi nangami at saa yu école tëjee Dakar dañuy ñëw Casamance maa ngi koy wax barke démb commandant gendarmerie bi ma ni ko kañ mu ne kañ ngeen commencé ñëw Ziguinchor ma ni ko jàppuma at yi mais maa ngi fàttaliku am na benn année bu ñuy coup d'état Kumba Yàlla Guinée Bissau boobu mu ma fekk Gora Faye Mbaye nung man loolu yàgg na de ma ne ko waaw ba ba léegi maa ngi ñëw Casamance année bu nekk maa ngi ñëw lu ñu indi tamit mooy comme lii rek yëg ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la yàlla yónni woon pour mu jàngale diine bi moom yonent bi mu yónni ñi nga xam ne ñoo jàng diine ji mu ne leen jottali leen ma ko kon du jaadu nit jàng diine islaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko demal nga jottali moom mu dem tëdd di nelaw kon ñun dañuy am responsabilité ci sunu borom ëllëg yowmal qiyaam ku toll na yonent bi ne nu dem leen ngeen jottali ji dem leen ngeen jàngal nit ñi ñu ñu tëdd moo tax année bu nekk bu école tëjee danañ ñëw Casamance dëkk yu bare bari ñu daal di fay jaar par ñetti fan ñaari fan ñeenti fan juróomi fan ba yegg si Ziguinchor def fi fan yi ñu fiy def après daal di ñibbi xëy na yàlla mu ngi doog a def ñu yegg si tey fii waaye année bu nekk ñoo ngi wàcc néema deux fii nii dafay conférence dugg dëkk bi dafay conférence am dem ñibbi xëy na tey nag lañ ñëw fii ci suñu jubanti ak àndandoo suñu soppe bi di jaane nga xam ne moom tamit wax dëgg yàlla biñ fi ñëwee fekk ko fi ñun la ñu yëngatu Dakar moom ci loolu la yëngatu fii mooy jàngal jullit yi jàppale leen seen diine moo tax biñ ñëwee li mu wax léegi léegi ñu nuroo ñooy naawandoo ñu ànd ak moom loolu moo nu boole ak ak ak moom ci ci gàttal incha allah.
alhamdulilah kon ñoo ko déggandoor kon léegi ñu ngi jublu ñu jublu ci waxtaan bi maanaam thème bi mooy. naka la ñuy naka la ñuy jaamee wala naka la ñuy def ba xam ba yàlla bëgg ñu waaw naka la ñuy war a def ba yàlla bëgg ñu loolu am na solo ah loolu loolu am na solo ndax naka laa war a def ba diw bëgg ma entre ñun doomu adama yi sax dafay am rawat na suñu borom bi subhanahu wa taala léegi dañuy déglu oustaz mu alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balo ak di leen gërëm ci dalal bu ngeen ñu dalal ci seen ëtt bi pour nu fàttalanteeg yéen kàddu yàlla li ñu bëgg a waxtaan ak yéen nag mooy ci ay laaj lañ koy déparé laaj bi maa ngi koy njëkkee ci sama mbokk jigéen yi tey kenn ci yéen toog fii ndax bëgg na boroom këram bëggu ko walla bëggu ko su ma leen waxoon su ma leen waxoon léegi-léegi indaale naa benn garab garab googu ko fexe ba sa jëkkër naan ko dina la bëgg di ngeen ma ci ñaan walla du ngeen ma ci ñaan yéen góor ñi su ma leen waxoon indi naa léegi benn garab boo xam ne boo ko naanee jigéen ñi dina la bëgg ba nga am ñeenti soxna di ngeen ma ñaan wala doo ma ñaan.
kay kay loolu la ñuy xaar.
soo ko soo ko continuer woon noonu nag tey bu fekkoon ne kuy liggéey ci benn bureau la mu seeti benn kilifa kilifa gi ne ko am naa garab goo xam ne waxoon naa ne chef bi dina la bëgg lu muy wax jox ma ci su fekkoon ne benn militaire la. sëriñ bi mu ne ko am naa benn garab boo ko naanee commandant bi dina la bëgg colonel bi dina la bëgg lu muy wax jox ma ko noonu nga koy yéegalee ba ci kaw waaye ñun nag lii nuy waxtaan ak yéen indi wuñu garab de waaye dañoo indi ay mbir yoo xam ne bu ngeen ko defee yàlla dina leen bëgg ndax bëgg ngeen yàlla bëgg leen ah waaw ndeysaan yàlla tabaraka wa taala su bëggee jaam inna allaha taala iza ahabba al abdu naada jibril yàlla bu bëggee nit bu bëggee jaamam xale bi waxu mu wéeri bala ko xe mu wéeri kii waxu mu wéeri Apa turun ay turun ay ay ay si ay si jana si round beda. Ha.
waaw yàlla su bëggee jaam xam nga nu muy def dafay woo jibril su woowee jibril mu ne ko man yàlla dama bëgg diw bëgg ko yow jibril yaakaar naa xam ngeen jibril mooy malaayika bi nga xam ne moo nekk diggante yàlla ak yonent yi moom moo doon indil yonent bi alquran yàlla su bëggee nit day woo jibril moomu mu ne ko man bëgg naa diw bëgg ko jibril bëgg ko après jibril yi woowa asamaan malaaka yi nekk asamaan ba malaaka yëpp dajaloo mu ne leen yàlla nee na ngeen bëgg diw yéen ñëpp ñoom ñëpp ñu daal di bëgg kooku wala koo xam ne yàlla def ko bëgg jibril bëgg ko malaayika yi bëgg ko kooku lan lay dese gars yi xool leen tey rek yéen ñi toog fii su ci Macky Sall bëggoon kenn ci yéen nga xam ne xaritam nga mu bëgg la mu génn ci télé bi journal télévisé mu wax sa tur wax sa sant wax foo dëkk ci biir Casamance ci biir Ziguinchor ah mu ne kooku sama xarit la dama koo bëgg lan ngay sentir fu nga toog looyu yëg looyu yëg waaw kon yàlla mi nga xam ne mooy borom Macky Sall nag mooy borom jaam ñi su la bëggee nag yow lan nga war a yëg lan nga war a sentir mbokk yi sunu borom tabaraka wa taala moom moo waral ci boppam ne moom dafa bëgg jaamam yi yan jaamam yi ko topp kon soo bëggee yàlla bëgg la danga koy topp waaw topp ko mooy lan moom yàlla moom lim la sant nga def ko lum la tere nga bàyyi soo ko defee rek mu bëgg la mu ne moom yàlla moo waral ci boppam ci jaamam yi yi nga xam ne ñoo ko topp mu bëgg leen waaye yan jaam la yàlla bëgg mooy almuhafizina alal faraid jaam yi nga xam ne dañoo respecté farata yi lan mooy farata yi mooy mbir yi nga xam ne yàlla daf ko jël teg ko seen kaw ne leen lii laa bëgg ngeen def ko bu dee koor la bu dee julli la bu dee jàpp la bu dee sangu la bu dee sarax la li yàlla teg suñu kaw ne def leen ko soo ko defee rek yàlla bëgg la kenn ci góor ñi toog su demee beneen dëkk mu takk fa soxna mu indi ko ci kër gi mu ne ko lii laa bëgg nga def lii laa bëgg nga bàyyi soxna si nekk ci loolu waa ji daf koy bëgg wala daf koy bañ sa doom bi nga jur nii soo ko indee soo ko woowee ba ci kër gi nga ñëw nga ne ko lii laa bëgg defal ma lii bul def lii mu nekk ci li nga bëgg da nga koy bëgg wala da nga koy bañ ki ngay ki lay liggéeyal nga woo ko ba mu ñëw nga ni ko lii laa bëgg nga def mu nekk ci loolu di liggéey loolu da nga koy bëgg wala da nga koy bëgg wala da nga koy bañ ndax da nga koy daax uti keneen kon yàlla dafa am lu mu ñu lu mu ñu sant ba ñu nekkee ay jaam yàlla bind ñu indi ñu fii yàlla sant ñu ay mbir suñ ko defee yàlla moom daf nuy bëgg kon contraire bi mooy suñ ko deful safaan la ñuy am moom yàlla moomu mu bëgg jaam yi nga xam ne dañuy wattu farata yi dañ koy respecté waaye jaam yi nga xam ne dañuy def santaaneem waaye dañuy bàyyi tere bi kenn ci ñun toog fii su bëggee xam yàlla bëgg na ko wala yàlla bëgg ko rek na xool li ko yàlla sant ndax mu ngi koy def ndax li mu ko tere mu ngi koy bàyyi jeex na yow bu fekkee da ngaa bëgg a xam yàlla bëgg na la wala bëggu la xoolal rek lim la sant ndax yaa ngi koy def wala defoo ko bu dee yaa ngi koy def xamal ne sa liste sa tur mu ngi ci liste ñi yàlla bëgg su dee yàlla lim la sant defoo ko lim la tere bàyyi woo ko ah boo tamit xoolal sa bopp rek mbokk yi sunu borom tabaraka wa taala bëgg ko mu bëgg jaamam loolu mooy gaayatul uzma wal hadaful awwal li kulli muslim mbokk yi bëgg yàlla tabaraka wa taala wala yàlla bëgg jaam bi loolu mooy jubluwaay bi gën a rëy ci kaw suuf loolu mooy nga am yàlla bëgg la loolu mooy jubluwaay bi gën a rëy lépp lu am fi ci kaw suuf amal lu dul jeex bu yeboo sax ngay fanaan ay étage yu laal asamaan su yeboo nga am teraanga adduna bu dul jeex waaye loolu yëpp nga am mbëggeelu yàlla nga am kontaante yàlla moo ko gën mbokk yi kenn ci ñun su dajalee adduna ak lu nekk ci biir te yàlla gërëmu ko amul dara kenn ci ñun su lekkul naanul moo ngi xiif moo ngi mar waaye yàlla daf ko bëgg fertul dara kon jubluwaay bu réy bi mbokk yi suñu yëngatu fii lu ñu mun a def mooy nañu fexe ba yàlla bëggunu su fekkente ne yow yaa ngi ak nit ñi ci dëkk bi ku nekk yaa ngi bëgg a fexe mu kontaan kër gi ngay sëy yaa ngi bëgg a fexe ñu kontaan sa jëkkër yaa ngi bëgg mu kontaan say doom yaa ngi bëgg ñu kontaan say dëkkandoo nañu kontaan say mbokk nañu kontaan ñëpp nañu kontaan waaye yàlla nag lan nga préparé pour yàlla kontaan ci yow lan nga def pour yàlla bëgg la lan sa waa kër yaa ngi préparé lu nekk pour ñu bëgg la mene bu weer dee nga dem ji bitig bi utiration wala sa soxna soxna si moom tamit buy togg sax da ngay dégg mu ne ah sama alaaji bi tey bu bu bu añee rek day day day kontaan wala waaye léegi yàlla nag kon suñu mbir yëpp mbokk yi suñu waxtaan bi du lenn lu lu nu bëgg mooy nu fexe ñun ñi yàlla bëggunu naka la ñuy def ba yàlla bëggunu loolu mooy li gën a rëy moo tax lépp loo xam ne ci àdduna day tax soo ko defee yàlla bëgg na rek demal nga uti ko demal nga def ko demal nga dox ko demal nga wëri ko soo amoon kontante doomu aadama yi ci kaw suuf yëpp te amoo kontante yàlla amoo dara xam nga tax amoo dara képp koo bëgg rek bis mu ngi ñëw di nga ko fi bàyyi soo bëggee doom di nga fi bàyyi doom boo bëggee jëkkër di nga ko fi bàyyi boo bëggee jabar di nga ko fi bàyyi soo bëggee lekk di nga ko fi bàyyi soo bëggee naan di nga ko fi bàyyi soo bëggee yére di nga ko fi bàyyi bu dee daalal di nga ko fi bàyyi bu dee ay xarit di nga ko fi bàyyi bu dee kër la di nga ko fi bàyyi bi nga bàyyee yooyu yëpp fan nga dem ci yàlla léegi nag bi nga demee ci yàlla bu fekkee yàlla bëggu la nag kon di nga am problème moo tax mbokk yi nanu góorgóorlu képp koo xam ne dañoo bëgg mu bëggunu na ci yàlla jiitu dafa am benn jigéen mu ngi tuddoon Rabia al Adawi moom daa bëggoon yàlla ba xolam bi amul lenn lu mu ci dugal rek lu dul yàlla lépp la génne dafa bokkoon ci wax yi muy wax fa laytaka tahlu wal xayaatu marira mu ne walaytaka tarda wal anaamu gidaabu wa tay wa layta allazi bayni wa baynaka aamir wa bayni wa bayna al aalimina xiraabu soxna soosu xam nga lu mu doon wax su guddi jotee guddi daana julli junni rakk junni dafa bëggoon yàlla ba utul sax borom kër ndax nee na moom xas na bëgg yàlla mënul bëgg leneen ndax su ko amee borom këram daf koy taardeel ci jaamu yàlla lépp lu mu war a bëgg mu ne jox naa ko yàlla mu ne yàlla yow soo kontaanee ku mer affaire am la man yàlla yow na nga kontaan rek mu ne yow yàlla ak a neexoon sama digganteeg yow rek mooy dund sama digganteeg nit ñi la lépp dee sama yoon nekk ci moom loolu la doon wax kon doomu aadama jullit bu gëm yàlla na fexe guddi ak bëccëg nu mu amee ngërëmal yàlla yent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na man arda nnaas bi saxati llahi wakkalahu llahu ila nnaas wa man asqata nnaas bi rida llahi kafaahu llahu mauna nnaas yenent bi nee na képp ci doomu aadama yi koo xam ne dangaa bëgg a kontaanloo nit ñi mbokk yi yonent bi nee na ku bëgg a kontaanloo nit ñi ci meru yàlla ah da ngaa bëgg nit ñi kontaan ci yow waaye nit ñi nan la ñuy kontaanee ci yow pour yàlla mer mu ne yàlla dina def yàlla dina xiirtal nit ñi ci sa kaw ñëpp bañ la te doo am ngërëmal nit ñi kon nit li mu war a def mooy na fexe mu kontaanloo yàlla na fexe mu am ngërëmal yàlla wal fawz bi hubbillahi taala yajibu al iltizamu bi shartayni mbokk yi góor ak jigéen kan ci ñun fi toog moo bëgg a am ngërëmal yàlla ñun ñëpp ñun ñëpp bëgg nañ ko waaye loolu du mun a nekk lu dul ñu am ñaari charte ñaari mbir ñu def ko pour yàlla bëgg ñu ñaar ñaaree bu ci njëkk mooy ataqarrubu ilayhi bi kulli ma yuhib mooy nanu fexe nanu fexe nun lépp loo xam ne buñ ko defee yàlla bëgg na rek nan def loolu su fekkee boo jullee yàlla bëgg la bismillah bul tardé ti julli bi su fekkee boo wooree yàlla bëgg la bul ko tardé la ti su fekkee boo saraxee yàlla bëgg la bul ko tardeeti su fekkee boo defee ay askar yàlla bëgg la lépp a taqarrub nanu jéem a jege yàlla bi kulli maa yuhib ci yàlla lépp lu mu bëgg rek ne nañ ko def nañ ko def tey bu doon jigéen buy sëy la mu yëg ne moom lu mu def rek jëkkëram day kontaan lépp lay def soo ko ne lu tax ngay def li lu muy wax pour sama allaaji bi kontaan pour sama nangam bi pour sama nangam doom bu liggéeyee ba mu am alal mu ñëw mu ne papa dama laa yóbbu dama laa bëgg a yóbbu màkka lan la bëgg papaam def mer wala kontaan ah kontaan waaye imaginel doom bu ñëw mu ne papa dama laa jëndal sàngara bi pour nga naan ko ah papa ji day kontaan wala day mer allahu akbar gis nga kon bu dee doom day fexe papa kontaan bu dee jëkkër day fexe bu dee jëkkër bi tamit day fexe soxna bi kontaan bu dee ku jigéen maanaam noonu mooy doomu aadama yi su fekkee sax kuy liggéey la dafa bëgg patron kontaan kon nanu fexe lépp lu yàlla bëgg loo xam ne buñ ko defee yàlla kontaan nanu nekk ci loolu loolu mooy bu njëkk sart bu njëkk bi ñaareelu sart bi mooy tarku jamii ma yakra nanu bàyyi lu mu bëggul doom bi bu fekkee dafa bëgg papaam kontaan ci moom li muy njëkk a bàyyi mooy lu papaam bëggul wala ah soxna si su fekkente ne dafa bëgg kër gi yàgg fi sëy bi neex lan mooy problème am lu muy def mooy day def rek lu neex borom kër bi naka noonu kon lépp loo xam ne yàlla bëgg ko dañ ko war a bàyyi lépp loo xam ne yàlla daf ko bëgg dañ ko war a def mbokk yi danañ waxtaane fukki mbir fukki mbir yoo xam ne buñ ko defee yàlla bëgguñu fukki mbir su ko ku góor defee yàlla bëgg ko su ko jigéen defee yàlla bëgg ko su ko mag defee yàlla bëgg ko su ko xale defee yàlla bëgg ko duñ guddal waxtaan bi fukk rek la ñuy jël pour mu yomb ñu bañ ko dajale mu bari fukk yooyu bu ci njëkk mooy ittiba sunna ittiba sunnati rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy nañu jéem a topp sunna yonent bi yonent bi yàlla daf ko yónni mu indil ñu ay mbir mbir yooyu nañ ko jël ñu def ko da ngaa bëgg yàlla bëgg la dafal mbir yooyu yàlla yónni yonent bi ni ngay jaamoo yàlla lépp fexeel ba nga jël sunna yonent loolu alquran moo ko wax qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni su fekkee li ngeen di wax dëgg la bëgg ngeen yàlla topp leen ma yon man yonent bi su ngeen ma toppee man yonent bi lan ngeen di am mooy yàlla bëgg leen kon premier ñun góor ñi jigéen ñi ku bëgg yàlla bëgg la li ngay njëkk a def mooy defal li yonent bi indi toppal yonent bi soo toppee yonent bi yàlla bëgg la nan ngay toppee yonent bi mooy laajteel lu nekk loo bëgg a def rek laajteel lan la yonent bi doon def suñu la ko waxee nga def loolu boo bëggee julli laajal borom xam-xam yi yonent bi nan la doon jullee ñu ne la nii na nga def soo bëggee tëdd laajal ñu wax la nga def loolu soo bëggee dugg ci toilette bi laajal ñu wax la sooy jàpp laajal ñu wax la sooy lekk laajal ñu wax la soo bëggee topp sunna yonent xamoo da ngay laajte soo laajtee bu ñu la waxee rek jeex na loolu mooy tomb bu njëkk ñaareel mooy almuhafaza alal faraid mooy faratay nañ ko respecté wal mu daawamat ñu sax ci alal nawafil ci naafila yi yàlla dafa am farata yu mu teg sunu kaw farata yooyu mbokk yi nañ ko sàmm su julli jotee nañ julli ci waxtu wi kenn ci ñun bu mu toog di dajale julli yi tisbaar taksaan timis gee nga dajale ko kenn ci ñun bu julli jot nga toog sa kër waaye ba waxtu yi passé kenn def loolu toog di seetaan théâtre wala télé wala toog grand place wala toog su julli jotee nga dégg ñu nodd demal nga wuy ji mbokk yi ñun ñi toog fii yëpp yor ay portable ñun ñi toog fii yëpp laax yor ay portable ku ci portable am sonné lan lay sentir boo doon dox ba caag rek portable bi sonné looy yëg looy yëg dafa am dafa am ku lay woo bi nga sentir ne dafa am ku lay woo rapidement nooy def jël nga xool su fekkee numéro bi ki nga gën a bëgg moo lay woo nag looy def ñaar ngay boole ñaar ngay boole da ngay boole gis nga turam da ngay boole kontaan pour gaaw pour wuyu ko waaw bu dee kooku nag tey bi téléphone bi sonné lu ngeen indi xale yi ñu toog ne ndax ngeen mun leen garder lu ngeen leen indi nii ndax ngeen mun leen xool wax ak ñoom comme mënuñoo noppi ngeen indi leen fii wax ak ñoom ngeen gis leen boog nañ ñëw ci góor ñi pour bien ñu dem nii ci ginnaaw góor gi.
indi leen nii nii nii ci kanam kay ndax ngeen mun leen a xool nañ ñëw toog fii xoolal ñu bokk ci nañ ñëw nii rek mosul nañ ñëw nii rek.
déedéet indi leen ko nii ci góor ñi rek ndax góor ñi mun leen a xool benn yoon ndax ñu mën a noppi boobu ka am nañu leen mag fii ñoom dinañ leen nakk léeg-léeg. xoolal indi leen si baa ngi fii
nañ ñëw nañ ñëw rek benn yoon voilà.
ñu ñëw toog noppi eh léegi yéen nañ ñëw fii fii ci kanam ah nañ ñëw fii ci kanam mbaa du ñuy perte.
déedéet nañ ñëw fii ci kanam eh indi baa bi fii ci kanam buñ toogee fii bu mu fekkee yéen a ngi leen di xool dinañ noppi du est-ce que dinañ fi rek.
eh indi leen nii imaam est-ce que dinañ fi rek.
dinañ fexe dinañ ñëw kaay leen dugal dugal dugal eh bàyyi bambu.
ñëwal alaaji ñëwal ñëwal nii ñëwal nii waaw toog toog dugalal sa banc bi nii
bu dee amul ku fa toog toog.
na dem na dem na dem dugalal na dem na dem acca teg leen acca ñoo leen ngeen toog ngeen noppi nag aywa acca acca aywa acca tooy leen ngeen noppi dégg ngeen noo ngi nekkoon doon waxtaanee kenn ci ñun mbokk yi su doon dox ba ci yàgg téléphone am daal di sonné téléphone bi bi mu sonné li mu njëkk a def mooy dafa sentir am na ku koy woo bu mu xoolee mu gis ki mu gën a bëgg ci nit ñi kookoo koy woo su fekkoon ne benn xale bu góor la bu amagul jabar fekk xale bu jigéen bi muy bëgg a takk moo koy woo nu muy def est-ce que day wax ba ma dem kër ga ma wuyu ko ah est-ce que day wax ba weer bi dee ma doog koo wuyu nu muy def su fekkoon benn jigéen la ba amagul jëkkër ki koy woo di ko koy bëgg a takk mu xool gis tur bi allahu akbar lu muy def day gaaw waa léegi allahu akbar su fekkoon ne léegi ki la woo da ngaa xool rek nga gis ñu bind son excellence président de la république monsieur Macky Sall allahu akbar nooy def sa téléphone bi ah yaakaar naa boo koy bës boo moytul juróomi baaraam yëpp nga koy bësee pour wuyu wala allahu akbar léegi moo tax borom xam-xam bi nee na sooy dox ba caag nga dégg jàkka bi nodd mu ne yàlla moo lay woo dama nga wuyu yàlla moo lay woo xoolal bi nga gisee kee woo la rek noo def da ngaa wuyu kon bu la yàlla woowee nag waaye fii tey yàlla day woote nit ñi toog allahu akbar da ngay toog nga dégg jàkka bi allahu akbar allahu akbar nga toog tax doo wuyu ji lu tax doo wuyu ji pourquoi pourtant bi la doomu aadama bi woowee téléphone da ngaa wuyu sa xarit bi ñu la woowee da ngaa wuyu sa mbokk yi bi ñu la woowee da ngaa wuyu sa soxna bu mu la woowee nga wuyu sa borom kër bu mu la woowee nga wuyu sa doom bu mu la woowee nga wuyu yàlla woo la nga toog parce que loolu jaadu na lii moo tax yàlla du nu bëgg c'est parce que mbiru nit ñi la ñu ëppal ak mbiru yàlla te mbiru yàlla nag moo war a féete kaw ndax doomu aadama yi tey di la woo ngay wuyu doomu aadama yi di wax ngay dégg doomu aadama yi léegi ñu bàyyi la wala nga bàyyi leen léegi nga bàyyi leen dem wala ñu bàyyi la dem wala ndeysaan benn waaye dafa toog ba ngoon mu sangu ba set daal di sol yéreem daal di dugg ci bàmmeel yi mu ñëw ba ci bàmmeelu xaritam mu daal di nuyu xarit mu ne waqaftu alal quburi musalliman damaa ñëw ba ci bàmmeel yi ma taxaw ci sama bàmmeelu xarit ma ne ko asalaamualeykum mu ne waaye sama xarit bi falam yarudda jawaabi tontuwuma mu ne ko yow sama xarit xanaa da nga maa fàtte ba loolu moo tax tontuwuloo ma maa ngi nii ñëw naa fi ma lay nuyu si xanaa da ngaa fàtte ne yow sama xarit nga woon ba nga bañ maa wuyu ndeysaan xarit bi daal di koy tontu ne ko fàttewuma la de waaye suuf si moo lekkoon lépp lu rafet ci man nit ñi daan may bàyyi kenn nuyooti ma mu ne ma wéet fi man kenn ma tumaranke ndax yëg naa ne kenn amatul sama jot gis nga moo tax képp koo bëgg fii dina la bàyyi dem wala nga bàyyi ko dem soo demee ci koo jëm yàlla kon nan fexe yàlla moomu nga xam ne moom la ñuy fekk ji nañ bëgg yàlla moomu kon maa ngi ñaareelu tomb bi bu njëkk bi mooy buñ bëggee yàlla bëgg ñu lu ñuy def nañ topp sunna yonent bi ñaareel bi mooy nañu wattu farata yi ak nawaafil yi ñetteel bi mooy at tawba nanu tuub suñuy bàkkaar mbokk yi ndax nun am nan bàkkaar wala amunu bàkkaar amul kenn koo gis muy daagu ci kaw suuf lu dul fees na dell ak bàkkaar ndax yonent bi nee na kulli ibnu aadama xata wa xayrul xata'in at tawabin koo gis rek dafa fees dell ak ay bàkkaar kon dana jaadu ci ñun bàkkaar yooyu ñu tuub ndax yàlla baal nu léeg-léeg xale bi tooñ papaam mag ñi dajale ko ñu ne ko da ngay tuubal sa papa jox ko guro mu ñëw daal di jo nuyu papa ji nuyu ñaari loxo mu ne papa baal ma lan moo tax xale bi ñëw tuubal papaam lu tax pour bëgg a jubóog moom wala léeg-léeg jigéen tooñ borom këram mu bàyyi ba ñuy tëdd mu xam ne jëkkër bi mer na mu ñëw mu ne ko nijaay baal ma ax léeg-léeg ku ji ku góor ku rëyul ku rëyul tooñ jëkkër jabaram mu ñëw ci jabar bi mu ne ko baal ma ax léeg-léeg dëkk bi kenn tooñ kenn mu dem kooku mu ne ko baal ma ax waaw lan moo tax nga dem ci kenn nga ne ko baal ma lu tax mooy da ngaa bëgg relation bi continuer da ngaa bëgg xamante bi continuer da ngaa bëgg lan juboo da ngaa bëgg jàmm waaw léegi ñun su fekkee ne ñun ñii rek ñoo bëgg loolu rawatina sunu digganteeg sunu borom ndax jaaduwul bis bu nekk ñu ne yàlla baal nu ah kay lu tax ndax guddeeg bëccëg ñoo ngi tooñ yàlla te bis a ngi ñëw danañ dajeeg yàlla te su fekkee waxuñu ko mu baal nu ba ñu dajeeg moom danañ am problème kon inna allaha yuhibbu tawabin yàlla bëgg na ko tuub nit su tuubee rek yàlla daf koy baal ak loo mun a def benn waay rey na nit yu bëree bëri juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent la rey mu mu bëgg a tuub mu ñëw ci benn borom xam-xam mu ne ko damaa rey juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent damaa bëgg a tuub ndax su ma tuubee yàlla dina ma baal mu ne ko déedéet mu rey ko muy téeméer mu dem ci benn faqiih mu ne ko damaa reyoon juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent ma dem ci benn borom xam-xam ma ne ko damaa bëgg a tuub mu ne ma yàlla du ma baal ma rey ko muy téeméer léegi ma ñëw ci yow ndax yow bu ma tuubee yàlla dina ma la dina ma baal mu ne waaw ñu bëri dañuy yaakaar ne waa ji dafa ragal moo tax mu ne ko waaw déedéet waa ji dafa dégg diine moo tax mu ne ko waaw boo tuubee yàlla baal la mu ne waaye nag sa tuub yow dafa am charte mu ne lan mooy charte bi mu ne ko soo tuubee da ngay génn dëkk bi nga nekk parce que dëkk bi baaxul da ngay changer environnement da ngay changer place da ngay jóge fii nga dem feneen da demal dëkku sàngam waa ji daal dajale ay bagage am takk départ di dox di dox di dox bay waa ji egg dëkk boobu mu jëm waa ji daal di dee bi mu dee ñu gis ñaari groupe bi malaaka di ko xëccoo malaaka yi jóge aljanna di ko xëcc malaaka yi jóge safara di ko xëcc ñii ne safara la jëm ñii ne ajjana la jëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla moo yónni benn malaayika na ñëw atte leen nan la leen atte mu ne leen léegi nañu natt nañu natt ñu xool fi mu jëm ndax moo gën a jege wala fi mu jógee moo gën a jege su fekkee fi mu jógee moo gën a jege kon safara la jëm su fekkee fa mu jëm moo gën a jege kon àjjana la jëm ndax yàlla dina ko fay yéeneem ñu natt ñu xool ñu fekk fi mu jëm moo gën a jege ñu daal di koy jox waa aljanna ñu dugal ko aljanna kon tuub dafa baax lu tax yàlla bëgg na ko tuub inna allaha yuhibbu tawabin soo tuubee rek yàlla bëgg la allahu akbar pourtant gis nga tey bu yàlla waxoon ku tuub rek soo yëkkatee sa njagañaay di nga ko fekk cent mille dañ tuub wala duñ tuub ah dinañ tuub allahu akbar pourtant li ngay am ci yàlla boo tuubee moo gën cent mille ndax boo tuubee yàlla dalay baal dalay jéggal yàlla dalay bëgg yàlla dalay yërëm kon kay loolu moo gën a neex ñeenteelu tomb bi mooy assalaatu ala waqtiha di julli ca waxtu wi foofu ibnu mas'ud nee na su'ila nabi sallallahu alayhi wa sallam ayul amal ayul amal ahabu ila allah taala qaala assalaatu ala waqtiha yàlla ban jëf la gën a bëgg mu ne julli ci waxtu wa
papa kaay bi
yàlla ban jëf la gën a bëgg yeneen bi alayhi salaatu wasalaam nee na bi ñu laajee yonent bi yàlla ban jëf la gën a bëgg yonent bi nee na julli ci waxtu wi julli ci waxtu wi mbokk yi doomu aadama ci kaw suuf lépp lu muy def dañoo bëgg mu def ko ci waxtu sooy xëy di liggéey ban heure lañ lay wax ngay dugg ah huit heures su ngeen di jàng yéen xale yi ban heure lañ leen di wax école ngeen di dugg huit heures ku nekk ñu ne la huit heures nga respecté ko dinaa la jaral nga ji- yéeg oto dinaa la jaral nga yéeg moto dinaa la jaral nga daw lu tax bañ a tardé waaw léegi yow buñ la waxee huit heures ngay ñëw dix heures su borom liggéey bi waxee wala directeur école bi wax nga ne ko xoolal man lii laa mën a fan ngay mujje ah léegi naka la ñuy waxanteeg yàlla julli suba waxtu bii la julli tisbaar waxtu wii la julli taksaan waxtu wii la timis waxtu wii la gee waxtu wii la suba ban heure lañ koy julli ma joxe beneen misaal bu gën a gàtt sunu doom yi kenn ci ñoom bu waroon def examen entrée en sixième wala COP école sàngam la ko war a defee nga ànd ak moom jour examen mu ñëw mu ne la école bii la waaw nga xool numéro bi gis numéro 20 nga ñëw ba ni ko kon classe bii la classe 1 fii ngay defee ndax 1 la sa numéro fii la nekk mu ne waaw nga jox ko 500 francs nga ni ko léegi toogal fii ci porte bi suñ ubbee nga dugg nga dem ñibbi xale bi wàcc midi mu ne la papa damaa tardé ñetti matière nga ni ko quoi mu ne damaa tardé ñetti matière nga ne ko nu mu nekkee mu ne bu nga demee rek da ngaa dem rek ma toog foofu rek ma nelaw kenn yeewu ma ba ma tardé ñetti matière après ñu doog maa yee doom boobu boo ko juree noo koy def ah da nga koy dóor jërëjëf bu doon kuy def BFM la moom tamit nga def ko noonu mu ñëw mu ne la man tamit damaa tardé ñetti matière nooy def xale boobu da nga koy dóor bu doon kuy def bag la nag xam nga kooku ponkal la doo ko mënoo ko dóor kuy def bag da nga koy mere ah ok waaye léegi boo amee doom julliwul suba nag doom bu ndaw bi julliwul suba
dara du ko du ko ci.
ah sànq da ngeen waxoon da ngeen koy dóor kii mu ne da nga koy mere léegi yow am nga benn doom julliwul suba yeewul julli suba nooy def ah kenn waxul dara di léegi ma laaj leen ndax entrée en sixième bi wala BFEM bi wala bac bi wala julli bi ban lañ koy laaj àllaaxira ah waaw yow yow entrée en sixième bi moo tax nga dóor ko di BFEM bi moo tax nga dóor ko bac bi moo tax nga mere ko julli gi waxoo dara te xoolal julli gi moom lañ koy laaj léegi nag kon ndeke foog ñu delloo si xel yi gis nga ndeke même bu ñuy julli yéen góor ñi même mu ngeen yeewoo da ngeen war a yee xale yi ngeen ànd ak ñoom dem jàkk julli soo buggee sa doom mu dund dara ëllëg da nga koy jàngal loolu mu nga bëgg soo buggee sa doom di julli di dem jàkk soo yeewoo fajar ngay julli yee ko mu jóg julli amoo droit yow nga ngay jee- yeewu di julli nga bàyyi sa doom mu tëdd di nelaw ndax ëllëg yow mii la ñuy laaj tey soo ne woon nit ñi lan moo tax ñu yóbbu seen doom école football ñun ñett ñi man ak paa bi toog ak kii kan la ñuy yóbbu école football ah lu tax ñun ñaar ñi kenn yóbbuñu kenn soxlaatuñu xam na ne ñun mënatuñu dara lu tax kii ñu yóbbu ko ah pour mu mën ndax ñun ñi boo ñëwee dem dootuñu mën waaye kii ko yóbbu rek deux ans mu mën léegi nag yow lu tax nga xam ne jàkka bi mu ngi nii lu tax doo yóbbu sa doom pour mu mën lu tax doo ko yóbbu pour mu mën lu tax xale bu jigéen bu ndaw bi duñ ko muur pour mu mën am na maire yoo xam ne boo waxee maire lu tax doo muur mu ne eh, man de bu ma nekkee xale mosuma woon muuru mënu ma ko ñu naan tàngoor sax ñu naan dafa tàng. dafa tàng.
waaw kon xale bi dañ koy yóbbu jàkka ji xale bi dañ koy jàngal muuraay alhamdulilah ndax su màggee mu tàmm ko mu mën ko. léegi nag boo ko bàyyee léegi ba mu nekk ku màgget nga ni tey ma tey mu mën ko garab bi bu mu dëngee nii ñu bàyyi ba garab gi ngande toll nii dëng ñu ne garab bi dañ koy jubanti nu muy def problème rek mooy ñëw yow mi ko bëgg a jubanti soo moytuwul fii ngay tooy dee ñu lay toggal ay ay kii ak fekk yow mi xam nga ne da ngaa dugg ci loo mënul waaye bu mu nekkee bu ndaw soo ko bëggoon jubanti boo ñëwee rek da nga ko mën a jubanti kon mbokk jullit yi juróomeelu tomb bu nu bëggee yàlla bëgg nu mooy attaqwa qaala taala inna allaha yuhibbul muttaqin yàlla bëgg na ñi ragal yàlla danoo bëggee yàlla bëgg nu lan la ñuy def mooy dañuy ragal yàlla lan mooy ragal yàlla mooy def lu mu la sant bàyyi lu mu la tere loolu mooy ragal yàlla waaw soo bëggee rek yàlla subhanahu wa taala bëgg la da ngay da nga koy ragal moom yàlla ragal ko mooy defal lum la sant bàyyi lum la tere soo ko defee léegi léegi nga am mbëggeelu yàlla tabaraka wa taala ndax moom yàlla moo ko wax mu ne inna allaha yuhibbul muttaqin man yàlla bëgg naa ñi ma ragal juróom benneel mooy ashukru qala sallallahu alayhi wa sallam inna allaha la yarda anil abdi an yakula al aklata fa yahmaduhu alayha aw yashrabu sharba fa yahmaduhu alayha rawahu muslim mbokk yi juróom benneelu tomb mooy pour yàlla bëggunu mooy nanuy sant yàlla yàlla dañ ko war a sant guddi ak bëccëg xale bi sax bu lekkee ba pare day raxasu naan ndox mu ne yaay jërëjëf mu dem ci papaam mu ne papa jërëjëf wala gan gi sax su ñëwee ci kër gi ñu teral ko bu lekkee ba pare day wax jërëjëf waay ah seen añ bi neex na waay ah waaw léegi bu fekkee ñun sunu kilifa suñu defaree dara ñu sant ko waaw yàlla nag kan moo ñu may ñu dund kan moo ñu bind kan moo ñuy sàmm kan moo ñu màggal loolu dafa sori suñu bët yi ñuy xoolee kan moo ñu ko may yàlla su fekkoon ne boo xoolee ba ngoon balaa ngay tëdd ñu jox la facture ñu ne fayal fayal li nga yendoo xool fay ngay fay bis bu nekk balaa ngay tëdd ñu ne fayal kon léegi nga da ngay xëy suba nga ñu ne la xoolal nga ne xooluma tey dara xooluma ñu ne xool nga ne xooluma tey du ma xool damay grève su fekkoon ne boo nooyee ngelaw lu yàlla bi ba ngay tëdd ñu ne la fayal da ngay xëy suba ñu ne nooyil nga ni nooyi wu ma tey doy na ah allahu akbar waaye xoolal yàlla lim la may ngay xool di noyyi di dégg di wax di dox di lekk muy rees ngay naan muy neex ngay wax nit ñi di ko dégg mu neex torop te fayoo dara duñ sant yàlla yàlla defal nañu de waaye lu tax duñ gis loolu ndax seytaane moo nu topp moo tax li ñu yàlla defal lépp duñ ko gis waaye mbokk yi yàlla defal nañu yàlla defal nañu lu dul jeex wala taw bii di taw rek yu bari soo waxee taw bi ñu ne waaw taw bi dafa bëri taw warul ñëw waay taw bu ñëwee fii kenn du mun a football kenn du mun a def lii kenn du mun a kenn du mun a buñ toogoon benn at tawul du baax de waaye xoolal taw boobu li ciy dund xoolal yàlla xéewal bi nu ngi koy wàccee tey bu fekkoon ne yéen seen kër yi dañoo waxoon jël leen teen bi wala ñu ne jël leen robinet yi ngeen roose dëkk bi yëpp dana doy wala bu fekkoon da nga am robinet ñu ne la rooseel dëkk bi wala bu yàlla tawee ba pare ñu ne la yow yaay fay facture bi su fekkoon ne taw bii taw dañ naan ki- ah borom kër gi mooy mooy fay facture bi fu mu jëm kon yàlla lim nu may mbokk yi nañ ko sant moom yàlla del toog ba ci yàgg nga wax alhamdulillah rabbil alamin shukran laka ya rab shukran laka ya rab dama am benn jarbaat sama ñaari jarbaat kër ga dañu toogoon nii kenn ki yor paaka kenn ki am lu mu doon dagg kenn ki yor toog nii rek kenn ki yor paaka ki yor paaka am lu mu doon dagg rek loolu ëpp ko doole mu rëcc rek paaka bi dugg ci bëtu keneen ki rek deret bi sotteeku bu mu defee nii mu gis deret deret bi di génn comme dafa tàngoon rek mu ne sukuran laka ya rab sukuran laka ya rab mu ne yàlla maa ngi lay sant yàlla maa ngi lay sant yow yàlla su fekkee da ngaa namm sama benn bët bii pat alhamdulillah ndeysaan waaye dafa mel ne wax yooyu mu doon wax ñaan yooyu mu doon ñaan bu ñu demee hôpital ñu def nii ñu def nii ñu ne bët bi dara nekk ci dem leen ngay ñibbi waaw waaw waaw picc moom dafa teel a dellu ci yàlla.
wallahi alazim dafa mel ne ñaan yooyu mu doon ñaan ñaan yooyu moo ko sauvé ba nga xam ne bët bi bi ñu demee hôpital principal laa ko yóbbu 5000 laa fay principal nga xam ne ay millions ngay fay ñu def nii xool xool ñu ne ma kii dara nekk ci dara dara dama jënd tuufaay bee rek nangam nangam ngeen dem ñibbi ñu dem ñibbi ba léegi nii mu ngi mu ngi gis te paaka bi daf ci dugg. ju fekk ma fi ma nekk ci kaw ba der bi bu mu ne cër cër cër génn damaa gestu ni rek jël benn sagar benn sër ci ligne bi rek daal di koy taf ci bët bi karo yi fu mu taxawoon dafa fees dal ren waaye lu ma jaaxal ba léegi mooy bi ñu demee hôpital ñu dugal ko génne ko ñu ne dem leen ngeen ñibbi dara nekkul ci bët bi sama xel nag lu ma jox mooy nu mu doon santee borom bi maa nit day sant yàlla su neexee santal yàlla su mettee santal yàlla waaye am na ñoo xam ne tey faale wuñu yàlla boole wuñu yàlla seen programme te jullit dafa war a boole yàlla programme am soo tëddee nga yeewu lu nga war a njëkk a def mooy nga sant yàlla waaleykum salaam ndax am na mbokk yi ñu bëri bëri ñu yeewul bi nga tëddee yeewu ndax yow yaakaar nga ne ñi ñi tëddoon ci koñ bi ñëpp yeewu nañ am na ñu yeewul de am ñoo xam ne ci guddi gi lañ jëli caabi morgue bi dugal leen fi am ñoo xam ne ci guddi gi lañ leen jaaral noonu yóbbu hôpital am ñoo xam ne ci guddi gi ñu ngi tëdd ci lal yi mënuñoo jóg yow yàlla def nga jóg nga taxaw dara dara dara méttiwul war ngaa sant sa borom ah kon nag jullit dafay sant yàlla su neexee santal yàlla su mettee santal yàlla soo wéree santal yàlla soo feebaree santal yàlla soo amee santal yàlla soo ñàkkee santal yàlla yépp delloo ko ci yàlla ci la yàlla di xam ne yow mii jaamam nga yow mii dëgg-dëgg li mu la teg neex na la jullit du ñaxtu jullit du ñaxtu xam ngeen ñaxtu ah mooy di jàmbat mooy jàmbat di wax wax yu bari man kay ah ah man kay man sonn naa man man kay nangam ah nangam man déet nangam.
jullit def loolu su neexee da ngay wax alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat su naqaree nga ni alhamdulillahi ala kulli haal yonent bi ñaari ñaan yooyu la yoroon su neexee mu ne alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat su naqaree mu ne alhamdulillahi ala kulli haal ñaar yëpp da ngay sant yàlla waaye yow su fekkee neex na nga reetaan su mettee nga jooy yow lan nga wala da ngaa bëgg bis bu nekk rek ngay reetaan mu nekk mu nekk kon boo moo doon juróomeelu tomb mooy juróom-benneel as sukru juróom-ñaareel mooy as sabr ku bëgg yàlla bëgg la da ngay muñ inna allah yuhibbu sabirin yàlla bëgg na ñu muñ da ngay muñ su mettee nga muñ soo feebaree nga muñ soo amee nga muñ soo ñàkkee nga muñ doo nekk di jàmbat di wax di kepetu lan mooy muñ gis ngeen koor su ñëwee koor su koor ñëwee di ngeen woor ah du di ngeen woor nan nga def ba woor mooy da ngaa poñe bakkan bi ne ko bu ñu noddee salaatu doo lekk ba timis jot koor neex na wala neexul da ngaa poñe bakkan bi ne ko doo lekk doo naan ba timis jot pourtant yaa ngi romb lekk bi ci kër bi de mu ngi nii ñu denc yaa ngi romb ndox mi de mu ngi nii yaa ngi romb lépp waaye da nga ne bakkan doo lekk doo naan loolu mooy muñ noonu ngay def ba boo gisee alalu jàmbur doo ko laal ngay muñ boo gisee yëfi jàmbur doo ko jël da ngay muñ loo xiif xiif xiif xiif doo lekk lu aram loo mar mar mar mar mar mar doo naan lu aram loo ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk doo jël loo moomut su neexee nga muñ mooy yàlla su naqaree nga muñ sant yàlla ndax yàlla nee na ñi muñ bëgg naa leen kon juróom-ñaari tomb a ngi doonu yoo xam ne ku ko def rek yàlla dina la bëgg juróom-ñetteel bi mooy alxubb fillah ngay bëgg ngir yàlla su may bëgg góor gi dama koy bëgg ngir yàlla su may bëgg xale bi dama koy bëgg ngir yàlla su may bëgg sama mbokk yi dama leen di bëgg ngir yàlla ku may mënta jëflanteel yàlla mooy tax amul intérêt xam nga tey bokk na ci li tax ñuy jëflante mooy intérêt li tax ñuy ànd intérêt li tax nangam li tax nangam yooyu nag da nga koy dindi na yàlla rek tax Seydina Aliyin radiyallahu anhu wa ardaahu dafa xeex ak benn yéefér mu dóor ko jaasi yéefér bi daanu mu toog ci dënn bi bugg a dagg baat bi yéeféer bi tufli ko mu jóg mu wàcc ko saxaaba yi daal di yuuxu ne ko Aliyu lu tax reyoo ko Aliyu lu tax reyoo ko mu mu- mu dox ba yegsi ci ñoom ñu ne ko yow lu tax reyoo kii mu ne bi ma ko daanelee ma toog ci dënn bi daf maa tufli bi ma tuflee gisatuma yàlla tuflit bi laa gis te su ma ko rendee day nekk ngir tuflit te bëgguma ko rey ngir tuflit bi dama ko bëgg a rey ngir yàlla kon nit day def ngir yàlla sooy bëgg bëggal ngir yàlla booy bañ bañal ngir yàlla sooy kontaan kontaanal ngir yàlla sooy mer meral ngir yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla ta yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla tabaraka wa taala moo wax ci hadisul qudsi haqqat mahabbati lil mutahabbiina fiya man yàlla maa waral sama cofeel sama mbëggeel ci ñi nga xam ne dañoo bëggante ngir yàlla kon nit ñi bu ñu àndee bëggante ngir yàlla rek yàlla bëgg leen maa ngi yow bu ñuy ànd ñu bëggante ngir yàlla yàlla daf ñuy bëgg juróom-ñeenteel mooy atawakkalu inna allaha yuhibbul mutawakkilin mooy wakkirlu ci yàlla jël sa mbir yëpp jox yàlla jullit du jël mbiram di ko def ci garab doo jël sa mbir di ko jox kuur doo jël sa mbir di ko jox weñ doo jël sa mbir di ko jox jalang doo jël sa mbir di ko jox sa mbir da nga koy jox yàlla yàlla sa doom yi da nga leen di dénk yàlla sa soxna nga dénk ko yàlla sa borom kër nga dénk ko yàlla kër gi nga dénk ko yàlla waaye balaa ngay am dara rek nga buub kër gi yëpp ngeen dem sangu ji ñëwaat weer bu nekk ngeen dem sangu ñëwaat ah déedéet kon yow yàlla amul place ci sa dund ngay jël sa bopp jox yàlla wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu ku jox sa bopp yàlla yàlla doy la wa ala allahi falyatawakkalil muminin ku gëm yàlla na jox boppam yàlla ibrahima alayhi salaam yonent bi yonent yàlla ibrahim bi namru jàppee ko taal safara ba safara bi tàkk jibril ñëw ci moom ne ko ibrahima ndax da ngaa bëgg ma sauver la mu ne ko hasbuna allahu wa ni'mal wakil bàyyi naa sama bopp ak yàlla moo tax biñ ko jàppee sànni ko ci safara si yàlla nee na ba qul naa yaa naar kuuni bardan wa salaam safara mu ne ah mu ne yaa ngi tàkk de mu ne waaw waaye mu ne bul laal sama xarit bi mu nekk ci biir safara bi safara bi di tàkk waaye sedd guy yi ci moom kon mbokk jullit yi fukkeelu tomb bi ñuy jeexale mooy az-zuhd yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na izhad fi dunya yuhibbuka allah mooy dëddul àdduna yàlla bëgg la dëddul àdduna yàlla bëgg la soo bëggee yàlla bëgg la da ngay dëddu àdduna ñu bëri lu leen sonal tey mooy àdduna lan moo tax nit ñi di jël gaal yi di dee ci géej gi ndax ya jaamu yàllaa tax dañuy dem màkka dañuy ziyaare ji yonent bi luñ bëgg xaalis
àdduna àdduna bëgg àdduna day lor nit lan moo tax nit jaay boppam àdduna lan moo tax nit def lu bon lan moo tax nit jaaf moroomam rey àdduna kon nit bu dëddee àdduna rek yàlla bëggu ko yonent bi nee na dëddul àdduna yàlla bëgg la kon mbokk yi ci gàttal lii mooy fukki tomb yoo xam ne moom lañ leen indiloon ci naka laay def ba yàlla bëgg ma ñun ñëpp yal nañu yàlla bëgg yal nañu yàlla may ñu am kontaanteem àdduna yal nañu yàlla dimbali ba ñu am ngërëmam àllaaxira kon maa ngi jox kàddu gi sunu njaatige jaane ñoo ngi koy gërëm bu baax a baax di leen gërëm yal na yàlla defal leen tawfiq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu ñu paree ko am laaj rek incha allah buñ ko xamee nu tontu